bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant euh, di leen di gërëm tey dañ ñëwoon si suñu vidéo doon waxtaanee yéen si wàllu loolu ñuy wax nibbi-nirki nibbi-nirki nag boo ko déggee ñi nga xam ne dañu faral di am talaf tolof fa ñuy liggéeyee comme ça suñu doom yi nga xam ne dañoo génn nekk bitim réew di liggéey ñu faral di leen di téye si seen wàllu liggéey mbala amuñ ay sans papier la ñuy doon amuñu ay papier fa ñuy nekk sa bitim réew mbala ñuy liggéey euh, di jaay mbala ñu nekk si si yeneen activité ñu tëba tëb téye leen téye leen si anam ba nga xam ne du anam bu rafet jàpp leen yóbbu leen seen mbokk dootu leen gisati ñu tëj leen si ay kaso mu doon mbir ma nga xam ne mbir mu metti la mbir ma nga xam ne suñu mbokk sénégalais yi ñu ngi koy dund si côté bitim réew euh, si côté Europe ak euh, côté Afrique ñi nga xam ne dañuy dem ba war a àgg ñu jàpp leen tëj leen mu doon mbir yaa nga xam ne mbir yu méttee méttee métti la mbir moom nag tey yàlla dimbali nañu ñi ngi jëflanteeg ay kilifa ya nga xam ne am nañ ci ay saafara ya nga xam ne euh, saafara yooyu euh, macha allah ñoom dinañ si euh, dinañ leen si dégg ñu expliquer ñu jox nañu si mbir ya nga xam ne weddi gis bokk si comme na ma ko doon waxee rek bisimilah rahmaani rahim këll baa ngi nii. mooy nekk nii tëll bi tëriñ moos yi nekk léegi boo agsee damay wirdu kilifa yi xale baa ngi nii léegi damay wirdu kilifa yi léegi bu ma wirdoo euh, bu ma wirdoo léegi kilifa gi dina ñëw bisimilah rahmaani rahim lamina suma wàcc na nuyul ma kilifa gi ne maa ngi koy ziar di koy ñaanal jàmm Hmm. ñu ba nga xam ni dañ doon waxtaan tey lu jëm si wàllu nibbi ki mooy euh, nibbi ki mooy la nga xam ne soo ko yoree euh, kenn du la mën a téye kenn du la jàpp si sa wàllu liggéey kenn du la jàpp euh, si bu fekkee ne yoroo ay papier fële comme ñi nekk bitim réew suñu doom yooyu nga xam ne ñu jànkoonte ay torof torof léegi ñu bëggoon nga waxtaan si wax ñu yi nga xam ne moom nga siy joxe Eh, ak lu koy saafara bu ko doomu adama amee bisimilah. nee na ki nag loolu nag doomu aadama bu ne war na ko ut surtout kuy dem tukki ji. Mhm. ñoom nag yàlla may na leen xam-xam boo xam ne. Mhm. yor nañ lépp loo xam ne. jullit bi nga koy jànkuwante sa àddina. Mhm. ki nag. nee na yor nañ ci saafara boo xam ne. boo ko takkee. boo demee tukki ji kenn du la téye nee na ni nga demee noonu ngay ñëwaatee mm-hmm. doo fa am wàllum papier daal mais mm-hmm. loolu nag mm-hmm. ñoom yor nañ si bagage yoo xam ne yu gaaw la ñu ko defee moom nee mbokk yi yéen ko déggandoo ni ko kilifa gi waxee euh, mooy ki nibinirki ki mooy mbir ma nga xam ne dañ la koy jox ñoom kilifa yi suñ la ko joxee da koy takk si sa ndigg kooku boo ko takkee euh, doo jëflanteeg ay takk der yi nga xam ne ñoom ñoo nekk côté bitim réew ñu lay toroxal mbala ñu lay jàpp di lay tëj mbala nga nekk di jaay ñu fekk la fa nga nekk jàpp tëj la fàtte la fa yooyu yëpp doo doo jànkuwanteeg mbir yooyu nga xam ne mbiru métital yooyu nga xam ne dañ koy faral def ñoom ñoo ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew euh, di koy jànkuwanteel ak euh, ña nekk foofu ñi nga xam ne ay sans papier lañu encore euh, ñu leen di faral di jàpp di leen di génne réew mi encore képp koo xam ne yàlla dimbale na la ba nga jëflanteeg euh, ñun si côté boobu bu soobee yàlla kilifa yi yor nañ si ay saafara comme ni ko kilifa gi expliqué ba nga xam ne ku ko yor rek macha allah euh, di nga dem si jàmm ñibbiwaat sa kër si jàmm liggéey la ngay liggéey si jàmm del si waat sa kër encore si jàmm del si waat sa réew mi nga xam ne fi nga soqeekoo si jàmm te doo am benn problème loolu lañ leen indi tey si suñu vidéo tey bi mu doonoon loolu ñuy wax nibbi ki soo ko takkee yàlla dina la musal si lépp loo xam ne lu jëm si wàllu takk der la mbala ñu lay téye di lay toroxal mbala ñu lay pamti pamte di lay dugal si ay kaso ya nga xam ne kenn dootu la gis kenn dootul xam si yow loo nekk say mbokk nga réer leen euh, kon loolu lañ leen indiloon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu képp koo xam ne rek euh, soxal na la suñu numéro yi ñu ngi si suuf boo ñu contacter daañu jëflante ak yow wasalaam.